saa su nekk seen bañeel ak seen bañ projet Pastef gi mu sax law ba faw ci réewum Sénégal ak fépp ci Afrique ak àdduna bi yépp moo leen di topp ba bañeel lañuy xool ci jëmmi nit ki Bassirou Diomaye fay mi makki Sall jox ndigal Babacar Diagne bu Sénéra ak Racine Talla ngir ñu tere ko mu wax ci RTS PDG bu Walfadjri Cheikh Niass di doomu Alaaji Sidi Lamine Niass ibbil na ko Walfadjri la la voix de sans voix nee na ko fii sa kër la saay bu la neexee temps d'antenne bi la RTS xañ may naa la ko fu la neex waxal loola neex defal ngir nag Sénégal moom rek la ñuy liggéeyal

moom moo di Bassirou Diomaye Faye fi mu ko tënk nag bokk na ci euh, la voix des sans voix à chaque fois rek képp ku ñàkk voix mën nga ñëw euh, fi nga xam ne moom moo di Walf euh, TV ngir ñu daal di dégg suñu ay micro nga daal di wax donc. mbañeel gi président Macky Sall am ci Pastef Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ci gën a doyoo tiitaange ak ragal gi ñu bañ ngir rek ñu jot bopp nguur gi lan moo ko waral seen ñàkk njub kese. ndax bu fekkoo ne jàpp nañ ni wala sax gëm nañ ni yàlla dogal te yàlla ci bopom moy tan nguur comme ñom ñu koy waxe sa su nek waye nak ci kaw tan goog suñu borom di tan nguur population sénégalaise bi tam am nañ ci wal ñom ñooy juk ñom ñooy xol ku len neex ku len doy ak ku mën doon bu ñu sànnee yàlla dogal waye Macky Sall dafa bañ lank ne déet lool du fi amé dafa bañ dogal suñu borom Ousmane Sonko bam koy songu ba tay muy gëna am popularité Diomaye Faye itam di gën a yokk ndax ñoon ñëpp mënoon nañ leen bañoon xam ci politiku Sénégal ngir rek ñoom dañoo ñëwoon rek di wane yoon yoonu dëgg nan la ñuy def ba ñëpp jub nan la def ba alal ji nga xam te ñun ñëpp ko bokk ñëpp jot ci nan la ñuy def ba alalu Sénégal moo xam fer moo xam pétrole moo xam gaz lépp lu nekk ci réewum Sénégal Sénégalais bu ci nekk xam wala yëkk wala ñu séddale ko ci maanute nan la ñuy def ba ku ci feebar mën a faju nan la ñuy def ba alal ji ñu bañ ko pàccoo loolu moo waral jafe-jafe yi.